mooy njiitu daara ji di wax sama mbég nag ci tàbbi fi xam naa sama ñëw bi sax nag du hasard waaye bokk na ci li li ko sabab moom li li li ko tedd ki sëñ Muntaxa def bërki démb rek te ngeen jëfe ko jëfe win woo xam ni moom sedd na képp kuy xolub murit képp kuy ab taalube noo ne mu Muntaxa waxee ngeen jëfe ko noonu nii ngeen ko jëfe kenn ko ci ne ci ñun def na ko mbig soññ na ko ci ak taalube ab taalube day dàkk bëgg-bëggub sëriñam sëriñ bi bu bëggee amatuñu lu ñuy def amatuñu lu ñuy xalaat bi sàmbaay sama sëriñ ba wàccee liggéey ba ma wooyee ni ma dama bëgg nga indi ko fii laa koy denc ndigal la ba ma ko waxee ca tàng tàng ba laa ko nangu te ndigal moom boo ko nangoo rek bu la sëriñ bi jox defloo nga def rek nga gis njariñ li léegi moo indi kat ñu may wooyee sëñ Sall ndigal xam defal ma loo xam ne wóor na ma ni mënaluma ko woon sama bopp sëriñ bi jogge ci pëstéef boobu ak pas-pas boobu ma amoon ci bëgg jëfe ndigalam loolu mu mu mu mu defal ma li ma defal ba tax fu ma jaar ñu may nuyu di ma sujjootal di ma siyaare nangu ndigal rek a ma ko may bu ma ko deful woon fii boo fi du ma fi sax ñi may dugg bu nëgë fekkoon ndigalul sëñ Muntaxa loolee maara day ma def xewoon ci neneen nudul noonee kon xaw ma fu ma jëm kon fii tey duma fi toog ba ngeen may safoo sëriñ tubaa rek ay dëgg moo fi ne tey moo fi ne ëllëg moo fi nekkoon démb kon mbégteel mu rëy laa am tab tabbi fii fii kër sëriñ Saliou ci lu wér nag xam naa duma fene sax di détaillé waaye fii man wóor na ma ni kër sëriñ Saliou waa ci ci ci lu bari lu tax ma wax ko euh, Serigne Atou kóllëreem ak sëñ Béthio yàgg na sëriñ bi moo ko dogaloon ca Serigne Saliou la woon fasante woon nañ wëllëre ganase woon na ko ba mu yëkkati woon montre or ca jamono jooja quatre-vingt quatre-vingt-quinze mille neuf cent quatre-vingt-quinze la leen Serigne Saliou boole woon daara ji sëriñ bi boole woon na ko ak sëriñ Béthio booba aatu liggéey yu rëy nga xam ni sëñ Béthio seqoon na kook moom ba tey mi ngi ci xel yi doxin wa pësteef ba ak safoo ga leen sëriñ Saaliwu safoo woon ñu daan defa nekkandoo ci kër ga bu ñu masaan a xëy yor yoru màggal nga xam ni booba eh, lu xew lu bari dafa daan xew loolu yëpp ñu ngi koy fàttaliku di ko bànneexoo man daal ñëw naa sama kër fii moom dama fee bokk waajuma ko sax nag waaye dama koy waaj man damay ñëw fii damay bokk ah, waaw ndax sëriñ Touba daa def nag ma bëgg xasida yi man waaw xasaay di Serigne Touba ginnaaw ba ko sëriñ Saliou sunu sang ba diggalee woon Cheikh Béthio ni woon ko nanga wax sa taalibe yi nañu jàng xasaay di Serigne Touba sëriñ bi daa def nag man ma am cofeel ci xasida yi moo tax fi ne mbooloo mi eh, maa ngi ci ak ñoom di leen xirtal ci xasida yi di leen ci jëntal lu ñuy mën a def ma ne leen xasaay di rek maa ngi leen ciy toqi eh, di ci dem ñoom nag eh, waaye ñaanal leen ma rek ndax xam naa ni mooy njariñ tey mooy njariñ ëllëg kon maa ngi sant bu baax di leen wax sama mbég nag di fas kóllëre gi kóllëre googee sëriñ bi façon ci digganteem ak sëñ Béthio maa ngi koy fas yéene wéyale te ngeen ñaanal ma yéen tamit ndax yéen de xam naa ne ku ngeen ñaanal lu ngeen ko ñaanal mu dal ko ndax sëriñ tubaa xasaay di sëriñ tubaa yi ngeen nooso de ci suba guddi bëcëg te di liggéey liggéey bu ñëpp nangu bu sëriñ tubaa nangu moom maa ngi sàkku ngeen ñaanal ma ba ba rek liggéey bi euh, ñu am ci ndam rek waaw waaw tey ñaan sëriñ Muntaxa yàgg fi téwér ndax defal nañu loo xam ne ñun cantaakon sëriñ Muntaxa da dañoo sowe ñun cantaakon ndax xew-xew bi bi mu amee nam ci doxe bu ko defuloon kon heure bii yëf yi mën naa am nu mu demee waaye nag xam mi mu xam ni mbirama ndax moom mooy sëriñ tubaa mooy sëriñ saaliw ci ñun xam ni mu xam ni mbirama moo tax mu doxe ci noonu mu ci doxe maa ngi sant nag bu baax a baax a baax a baax. gannaaw ndax. noo ne sëñ Mountakha lu mu bëgg rek Serigne Touba ko bëgg te ñun ay murit lañu. maa ngi ñaaxaat ñëpp rek ñu doon benn benn bennoo googu sëriñ bi bëgg nanu fexe xar sunu tànk tubéy ba loola am ndax lu mu bëgg yàllaa ko bëgg yonent mbee ko bëgg bëggug yàlla nag ñun sax dañ ciy ne rek waaye day am moom sëñ Mountakha ba mu ko bëggee rek lay ne ndax mooy sëriñ tubaa te sëriñ Touba lu mu bëgg mooy am te nun ay taalibe la nun nag bëgguñu lu dul sëriñ Touba nag sëñ Mountakha lu mu waxanu gënal lu ñu keneen wax kon rafet naa njort ci ni dama fi ne sax di ñaan man wóor na ma ne ay murit ngeen ab murit nag daa moomul boppam amuñu ak bëgg liñu sëriñ bi dafa dëggal rek la la ca la ñu ne ah loola nag la ñu ñun lan la ñu jàngal ca loola la ñu ne kon daal wër na ma ni rek dana am yàlla na ànd ak ku wér te te te te mbir mi gën a gën jëm kanam te loolu amul na table day am ndax bëggug sëriñ bi maa ngi leen di ñaanal gudd fan ak ku wér. waaw man loolu laa leen di jaanal waaye bëgg-bëggu sëriñ bi moom wóor na man day am waaw yal nañ ci bokk sëñ Youssou moom lay jëmm ju baax waaw sëñ Youssou ginnaaw gi ma tuddee aatu maa ngi koy maa ngi am ay pàttaliku yu rafet ak ak taalube gu rafet gu mu mas a doxe digganteem ak sëriñ bi waaw ñoom ñoom ñoom sëriñ Tuubaa leen yaral boppam maa ngi koy nuyu di ko siyaare